président Macky Sall lan mooy problème bi luy problème bi pourquoi forcer nguur ay waay li xanaa dootul jàmm lu ngeen di forcer nguur gi dama bëgg a xam ndax lii jàmm la wala du jàmm lu ngeen di forcer nguur gi maire yi pare nañ jàrt ji pare nañu jéeg ji pare nañu ñëpp pare nañu gis ngeen maire bii di dem benn maire a ngi nii di dem tànk yi baaxul waaye daal luy oto ndax bëgg président Macky Sall tànk yi baaxul waaye daal luy oto ndax bëgg président Macky Sall kon réew mi xam leen ni ñun ñi seen xol yi def na ci président Macky Sall waaye si kanam tuuti bisaab bu ruus naa fikul wallaay bisaab dama wutal ma bisaab salaamaaleykum marché ngay dem wutal ma nga baxalal ma ko bisaab boo bisaab yes yes mais nagu yee sama jég groupement daam yaa ngi pare fu mu toll nii Fatick fu yaa ngi ñëw naa démb fu mu toll nii Fatick fu mu toll nii Fatick suba la tabaski barki Seydina Mohamed Fatick a ngi mel suba la tabaski Fatick a ngi mel ni suba la màggalu Tuuba Fatick a ngi mel suba la gàmmu kër yi nañu dellu hôtel yi fees nañu logement yi fees nañu kër yi hébergé nañu Fatick a ngi fees dellu dellu dellu dellu dellu dellu kenn waralu ko nag ku dul le président Macky Sall le président de Ousmane Sonko le chef suprême des armées moo waral nit ñi bàyyi seeni nelaw bàyyi seeni activité bàyyi seen lépp di ko topp sénégalais yaa ko toppee Kédougou ñu ne déedéet waaye ndax fa la ñu yemal le président Macky Sall mu dem Kaolack sénégalais toppaat ko Kaolack waa Kaolack génn tepp ko ñu ne déedéet ko la ñuy yem ñu toppaat ko ba Kaffrine Macky le président de tous les sénégalais le chef suprême des armées le de Ousmane Sonko sénégalais toppaat ko Kaffrine xanaa kon sénégalais bëgg nañu président Macky Sall dama ni yàqkat yi xanaa sénégalais bëgg a ñëw Fatick ah dama changement daf mën na am réew mi président Macky Sall lañ wóolu réew mi président Macky Sall lañ tànn réew mi président Macky Sall moo koy doxal président Macky Sall li muy liggéey ci semaine bi kenn xamul lu mu toll dama ni réew xam-xam moo koy yor xuloo yoru ko xeex yoru ko teesante yoru ko dagg sante taal yoru ku bëgg am dara da ngay def dara boo buggee doon ëllëg dara da war a jàttal sa tànk bu kenn fàtte ne Ousmane Sonko amal problème ak Mame Mbaye Niang maanaam sentiram ak làmmiñam moo ko tooñ bu leen réew nag même xale buy jàng bu bëggee xëyee demee classe toog wax ndànk bagité en mètre même xale buy jàng même xale buy jàng bu bëggee teel a xëy suba

paamu maam Fatou day day wax da ngeen di tàcc muy xumbu day leen di tàcc ñu xam ne président day ñëw waaw kay dama ni président Macky Sall tey mooy dugg dëkkam mooy dugg Fatick yéen di seet dara xewul taal leen seen lalu yaay yi of course leen almet seen gaazu yaay yi ah <coughs> taal leen seen nandu yaay eh, taal leen seen garaabu bu yaay yi taal leen seen jasneeru yaay yi a xam ñun waa Fatick tey dinañ leen wan ni président Macky Sall mi ngi dëkkam dinañ leen wan ni tey président Macky Sall mi ngi dëkkam ñun dinañ wan tey sénégalais yëpp fi ñu président Macky Sall toll ñun dinañ wan sénégalais yëpp fi ñu bëggee président Macky Sall ñun tey dinañ wan sénégalais yëpp président Macky Sall tamit jaral nañu suñu bakkan déedéet de c'est que le président Macky Sall yar gi mu àndal tey gi mu àndal intelligence gi mu àndal ku mu àndal ci noonu ngay àndeeg moom waaye li ngeen mën ni yëpp ñun mën nañ ko waaye dama ni tat bu baax bi dara xewul tàccu leen loolu tàccu leen xewul dara tey la di def lu dul le président Macky Sall nar a jël Fatick dëbb ko ba mu mokk tey lay jël Fatick def ko di suulal ko jëkk tey lay jël Fatick def ko di soosu kaani ñun Fatick waase ñu topp ci ginnaawam di mel ay kànja muy ratax ku génn ñu ñaf sa ci kànja gi nga dem tëddi la moo xew dara xewul le président borom réew mi borom dëkk bi mooy jubilé borom Sénégal mooy unifié Sénégal dara xew fi lu dul moom la chef suprême des armées le président de Ousmane Sonko moom mooy inauguré moo xew mooy président bi dara amul dara xewul le 17 bi lii la lu ngeen di mer lu seen xol yi di dagg lu ngeen di bon lan ngeen di bon laa bëgg o laajte pourquoi ngeen soxor am président boo xam ne barki démboo jaay kaw nag la inauguré maison de la jeunesse maison de la jeunesse ba lan ak lan moo fa nekk maison de la jeunesse ba am na de sport yéen waa Kaolack seen piscine dafa dafa tiri moon président Macky Sall dafa ne leen piscine bu bees tàkk fa nekk de favori dina ko dina leen ci jàppale biir kaw la ba nga xamante naka dina gën a mën a yombalal seen liggéey waaye naka la ñuy amee président buy tabax ñun ñu naan dañuy toj naka la ñuy amee président buy defar ñun ñu naan dañuy yàq naka la ñuy amee président bu jël Sénégal fekkoon ko ci zéro di ko yóbbu ci x y règle ak z ngeen ne ñun dañ koy yàq waaye ñii ndax ay sénégalais lañ damaa bëgg a xam ndax yéen léegi ay sénégalais ngeen ndax lii ndax lii la ñun li ñu Macky Sall defal kenn mësuñu koo defal li ñu président Macky Sall defal kenn mësuñu koo defal damay daal di dem naani garab xaar leen ma maa ngi ñëwaat lépp ngeen am ministre yi moom Macky Sall moo ñëw Fatick dëkkam réewam le 17 benn le 17 la le 17 benn le 17 la le 17 benn date la muy le président Macky Sall mooy ñëw Séné mooy ñëw dëkkam Fatick c' a à requin à requiendra dans l'histoire tey Macky Sall mooy ñëw dëkkam dëbb ko ba mu mokk bi mu mel ni suul a bëgg lii mooy dat bu baax bi leneen lu ci waay organiser baaxu leneen lu ci waay organiser sa xol mooy métti gis ngeen nii ni ma kontaanee sama sama baat dee may gën a bëgg di gën a aalu ci a Macky Sall tey te nu joolaa yooyu laa bëggoon sol sax di tëdd ci tali bi di bërëngu mais duma ko mën duma ko mën kon nag xam leen ne lu leen keneen jaral ñun les Macky ñun ñu bëgg la président Macky Sall jaral na ko mille pour cent jaral nañu ko cent pour cent jaral nañu ko mille pour cent jaral nañu ko deux mille pour cent du yéen kese la yàlla sàkk def ci ay xol réew mi da ngeen ko bokkal seeni nawle rek la leen du président du Ousmane Sonko dong moo am diplôme Sonko bu mënul jiite keneen day jiite. bu mënul bokk élection yi moom moo am problème ak yoon mënu cee bokk du ngeen ñu ko forcer yéen a ngi Europe respecté intérieur yi te seen dëkk ngeen ne bu intérieur yi ku fi dee Ousmane Sonko am na ñaari jabar am na ay doom am na compte bancaire am na ay kat-kat am na ñu ko yuuxul yow boo génnee dee ndax Ousmane Sonko dañ lay dëjël suul la ñu fàtte la mu jeex Ousmane Sonko continue la vie est belle day continuer génn kaso di def campagne ku ko weddi laajteel ñi deewoon ndax Ablaye Wade ña deewoon ndax Ablaye Wade ba Ablaye Wade nguuroo demul seen kër yi dangal leen ay salaire seeni mbokk ñoo pex ñi deewoon ndax Ablaye Wade jeunesse ba génnoon jàkkaarloog Senghor jàkkaarloog Abdou Diouf rayanteeg ñoom ba dee ndax Ablaye Wade bi Ablaye Wade nekkee président demul kër kenn ku dee jox leen salaire toppatoo seeni yaay toppatoo seeni maam ak seeni bàjjen déedéet daa nguuru nguuram ak ay mbokkam daal nguuru nguuram ak ñu continuer di dund politique du xeex politique du reyante c'est de l'expérience comme ni ko Barthélémy Dias di waxee politique xam-xam la c'est des idées échanger des idées jarul marché sur des cadavres jarul yàq sa réew jarul yàq say say say institut jarul xas sa président jarul xas la police yi la gendarmerie ndax ñoom ñooy papa yi ñoom la police ne ñu jaay ci kër gi ñooy jëkkër yi ci kër gi suñuy sœur la ñuy ñii suñuy frère la ñuy sëyal nañ delloo si waat xel te ngeen xam ne dat à retenir bi mooy sàll ngaa di maa ngi coupé foofu naan tuuti bisaab maa ngi naan tuuti bisaab ñëwaat tey dëkk bi jax dat bu baax bi président Macky Sall la dara xewul barki yonent yàlla Muhammad moo nekk biir siin ko yëngal maa ngi ñëwaat si kanam si teetu beeg lépp ci micro yi ci kaw oto yi di ngeen ma gis fépp bu soobee yàlla maa ngi nuyu trois cent treize personnes yi fi nekkoon en attendant mën a ko maa continuer ba fay baat